gërëm ñëpp tey dama waxoon ni que man waruma wax parce que sëñ Moustapha ay borom xam-xam nga indi xëy na ñoom ñoo ñu gën a mën a wax dafa di dañ lay gërëm ci taxawaay bi nga taxaw pour jeunesse sénégalaise mais dañ lay gërëm ndax jikko yi nga am ndax néew nañu ko am léegi dañoo toll ci jamono joo xam ni moom laa doon wax suñu papa. al amin man ko nit ñi gëm nañu yàlla waaye wóolootuñ ko parce que dafa am différence gëm yàlla wóolu yàlla ñaar yooyu mooy ngëm-ngëm mooy imaan mais gëm yàlla tamit xam ne yàlla am na ca bañ kaa wóolu am na te loolu dafa bari umpul kenn ni que jikko yi yàqu na waaye ñi ciy wax bariwul umpul kenn ni que jikko yi ñi ngi koy néewal doole bis bu nekk nit ñi di ci teg seen bët ca kenn du ci wax dara mu commencé ci ñun politiciens yi egg ci couche société bi yëpp société boo xam ne bu ñu demee ba wax lu dul dëgg wàññeetul dara société boo xam ne boo demee ba nit goreetul wàññeetul dara société boo xam ne nattatul nit ci lenn lu dul ci xaalis bu mu yor xamuñu sax na la ko amee société boobu problème am na fa Sénégal bi ñu xamoon bi fi suñu ñoom maam bàyyi mooy dañ daan natt nit ci ngëm yàllam natt nit ci njubam natt nit ci maandoom natt nit ci ngoram ak ci njàmbaaram ak ci liggéey waaye buñ demee ba léegi ñaata la denc ak ban oto lay dawal na ko amee sax toppatoowuñ ko loolu problème am na loolu moo tax président de la république jël ministère bi dégg ko ndaw xëy na jagleel ko ndaw ñi mais wax ni que nañ xoolaat nan la ñuy tabaxaate citoyen yi te defe naa Sénégal ku fiy tabax te wéeroo ko ci diine la ngay def day màbb ndax valeur diine moo ko njëkk a def am naa dégg naa benn boroom xam-xam mu ni avant alxuraan di wàcc sax ci ngor lañ daan àttewoo ñu am ci yaakaar fii bu baax donc juumuñu buñ ñëwee ci yow sëñ Moustapha ndax yooyu ñu fi lim yéeg yooyu ñu fi lim léegi nii yépp man mën naa seede ni mi ngi ci yow ca néew na ci ñum nekk ñu bari donc ni ngi leen di sant ci mobilisation bi di leen wax ni que lépp lu ñu def mën nañ ko ànd ndaw defal ak yéen di leen wax ni que duñu leen bàyyi gannaaw ndax gëm nañ ni buñ bëggee jàppale ndawu Sénégal ci këru diine yi lañ war a dem suqali ko pour nit ñi am jikko yu baax comme yi su suñu bàyyi amoon comme yi fi suñu maam yi amoon ñi ngi sant lépp ñi ngi sant ñëpp taxawaay bi rafet na ñu bàyyi borom xam-xam yi wax mais tey xëy na man sax waruma woon wax la député suñu papa ñu ngi lay gërëm ci jëmmal bi nga jëmmal bis bi ci wuyu si bi nga wuyu si xale yi ndaxte avant ngay nekk député sax wax dëgg yàlla man ci rajo bi laa njëkk a dégg ngay organiser camp de vacances des pauvres donc bàyyi nga xel ñi amul bàyyi nga xel citoyen yi nekk ci euh, jafe-jafe ñi ngi la ci sant di la gërëm di la wax ni que wax dëgg yàlla am nañ yaakaar bu baax ci li ngay def pour ndawu Sénégal maa ngi jéggalu ci wax ju gudd ji ñu bàyyi borom xam-xam wax parce que tey ñoom rek ñoo war a wax pour delloo si xel yi ci réew mi waaye surtout delloo si xol yi ci yàlla parce que nag amul kenn kuy gëm yàlla di jubati amul kenn kuy gëm yàlla di def lu dëng asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu